nit ki mën nay def dara loola feeñ nit ñëpp di ca teg bët te yàllay kese moom moo tax mu di ko def léeg-léeg sax bu ñu delloo ci aaya bi nga xam ne suñu boroom day wax ne in tubudu sadaqaati fa ni'imma hiy wa in tuxfuha wa tu'tuha alfuqaraa fa huwa xayrun lakum foofu dañuy wax ne ki nga xamante ne si bu joxee joxe boobu muy joxe doonte daa fés waaye am na ñeneen ñu ko mën a royee ca joxe booba loola la gën moom mooy mu fesal ko misaal yi ñu ciy joxe rek mooy am na ay jamono taw bu mettee métti amoon fi ba ñu baree bari loru ci waaye xalifa bi fi nekkoon di Serigne Sidil Mokhtar yàlla na yàlla dolli ko ay yërmande bi mu yëkkatee alal daal di joxe muy nekk alal ju takk ñu baree bari dañ koo royee ca loola ku mel ne ki Serigne Mouhamadinil Muntaxa mii it daaw am na loo xam ne amoon na ci réew mi bi mu yëkkatee alal daal joxe ñu baree bari dañ koo royee ca loola kon léeg-léeg jëf ji mën naa fes ngir lan ngir ne bu fesee am na ñeneen ñoo xamante ni si danañ ca royee loola nag mooy li nga xam ne kilifa war na koo taxawee beneen bi ci tegee dañu naan bépp sarax boo xam ne sarax ab lu mel ne ki azaka la ca gën mooy na nëbbu waaye bu fekkee sarax la boo xam ne ak coobar lewu la dangay ngay saraxe nii rek dañu naan loola la ca gën mooy na fés ngir ñeneen mën a xam ne kii kat ku aajo woo la ñu mën a royee ca loola beneen bi nga xam ne calan taxawoon keroog mooy lu aju ci yéem sa jëf muy naw sa jëf naw sa jëf wax nañ ne bokk na ci jàngoroy xol te bokk na ci yi nga xam ne day yàq jëfi doomu aadama ñu waxoon ne doomu aadama bi lépp loo xam ne mi ngi koy def sax nag daa war a jàpp ne jëf jooja sax yàlla suñu borom nanguwu jëf nag la ca ëpp solo mooy yàlla nangu ko loola jàngoon nañ ca aayab wa id yarfau ibrahimu alqawaacida min albeyti wa ismailu rabbana taqabbal minna jàngoon nañ ca ca imraatu imran fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin xasan moo tax nit ki li ëpp solo ci liñ koy ñaanal mooy yal na ko yàlla yërëm ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa doon wax ne kenn ci yéen jëfam mënu koo tabbal aljana ñu ne ko ba ci yow yonent bi mu ne ba ci man lu dul yàlla muure ma ak yërmandeem kon nit ki jëf ji mi jëf sabab la ci mu tabbi aljana waaye nag warul mën a sukkandiku ci jëf jooju ba jàpp ne jëf jii daal mooy jëf ji nga xamante ni si rek moo ko war a mën a tàbbal aljana ndax defal na yàlla loo xam ne kenn musu ko koo defal loola mën naa dugg ci bunta woru moo tax yërmaane yàlla mooy lépp léeg-léeg sax ñenn ci seen ay déggin mën nañuy juum ndax léeg-léeg kilifa gu mag a mag daa di génn àdduna waaye léeg-léeg ñenn ñi sax bu ñuy wax ci moom day mel ni dañ koy xaw a jommale ne yàlla na ko yàlla yërëm wala yàlla na ko yàlla jéggal léeg-léeg dégg rek ñu ne yàlla na ko yàlla dolli ay leer loola lu am solo la yàlla nañu yàlla tas ci barkeem lu am solo la waaye nit ku génn àdduna la ëpp ca lañ koy ñaanal moo yërmaane yàlla ndax yërmaane ñëpp ko soxla ñëpp a ko aajowoo ñëpp ko soxla ndax nit lu mu màgg-màgg ak lu mu rëy-rëy bu fa bu génnee àdduna dañ koy teg ci kanam jullee ko te koy jullee lan la ñuy wax allahumma xfir lahu warxamu yàlla yërëm ko te ko loolu ñëpp ci bokk yëpp moo tax kilifa ak ku man di doon bu génnee àdduna boo koy ñaanal bokk na ca la gën ca la nga koy ñaanal mooy yàlla na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla yërëm loolu buñ ko jommale kenn kon beneen bi ci tegee nga xam ne bokk na ci yi nga xam ne jàngoro xol la te mën naa gàllankoor doomu aadama ci ab doxam jëm ci yàlla suñu boroom mooy li ñuy tuddee tazkiyatu nafs tazkiyatu nafs mooy lan mooy nit koo xam ne day tagg boppam di kañ boppam ngir lan ngir daa jubloo tiitaru wala daa jubloo yëkkatiku nit koo xam ne daal saa yu toogee di wax moom ci boppam rek lay wax di wax ay jalooreem di kañ boppam di naw boppam te lam ca jublu mooy daa jubloo yëkkati boppam wala boog daa jubloo wan boppam doomu aadama yi loola nag alquranul karim ko koo yi ndax bu ñu delloo ci aayaat yi suñ borom day wax ne alam tara ila alladina yuzakkuuna anfusahum bal illaahu yuzakki man yashaa wala yudlamuuna fatila yahud yi nga xam ne dañ doon wax ne ñun ay doomu yàlla lañ ak ay soppeem nahnu abnaullahi wa ahibaau nga xam ne dañoo jàppoon ne ñoo fi gën suñ boroom daan ne yonent yàlla muhammad xanaa xamoo wala xanaa gisoo gis a xam ñi nga xam ne dañuy sellal seen bakkan di tagg seen bopp te fekk ñoom day amut lenn loo xamante ni sii moo nekk ci ñoom lu war a mën a tax ñu def loolu te lépp lu ñu jëf bu ñu ñëwee suñ boroom dana leen jox jëf jooja te loola yàlla du ca wàññi dara bu ñu delloo ci alxuraan ba tey doomu aadama am na loo xam ne bu ko xoolee ci boppam war naa xam ne amut lenn loo xam ne war naa nekk ci moom lu tax muy kañ boppam ak di bàkk boppam ngir yëkkati ci kaw nit ñi suñ boroom nee na huwa a'lamu bikum id ansa'akum min al ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum yàlla day moo leen gën a xam seen bopp ndax moo bind seen maam wala seen baay di aadama ci suuf waaye it moo leen gën a xam seen bopp ndax bi ngeen nekkee ci seen biiru yaay booba kenn xamu ca dara na ngeen ni màggee di jóge ci ab diggante di dem ci beneen diggante li ñu tuddee évolution nee na loolu suñu boroom ci boppam ba mu koy xam ak ba muy taxawee loola booba kenn xamul dara ci yéen moo tax suñ borom di wax ne wa laqad xalaqna al insana min sulalatin min tin nit ki day dañ koo bind te bu ñu xoolee cosaanam ban la wala suuf la te mooy aadam summa jaalna summa jaalnaahu nutfa nee na doomu aadama yi di àndante ci seen biir di góor ak jigéen mu nekk maniyu fa jaalnaahu fi qararin kiin nee na maniyu boobu nag mu ñëw ba ci benn ànd foo xamante ni ci biiru yaayam fu dëgër lay doon suñu boroom nee na ma bàyyi ko foofa bu fa amee ñeent fukki fan suñu boroom nee na summa xalax na nutfata alaqa toq man yi boobu bu matee ñeent fukki fan dafay wëlbatiku évoluer nekk li nga xam ne mooy deret ju way wala mu mel ni ki benn sax boo xam ne day wékku fa xalax na al alaqata mudga nee na deret ju way jooju wala loolu mel ni ki aw sax di wékku nee na bu fa amee ñeent fukki fan dama koy transformé soppi ko mu mel ni ki loo xamante ni si day nekk dogu ndawal nee na fa xalaxna al mudxata idaama nee na dogu ndawal woowu dama koy soppar ñi def ko mu nekk aw yax ay yax nee na fa kasawna al idaama laxman nee na yax yooyu nekk ci moom nag ma muuree ko aw yàpp summa ansha'nahu xalqan aaxar mooy lan mooy ñu yabal ci moom ab malaaka mu wal ci moom ak ruux daan ni nag fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin kon yàlla mi nga xam ne moo jaarale fii doomu aadama mu nekk maniyu am ñeent fukki fan walbati ku nekk alaqa am ñeent fukki fan walbati ku nekk mudduxa yi suñu borom walbati ku def ci moom ay yax walbati ku muure ko aw yàpp walbati ku wal ci moom ak ruux génne ko ci biiru yaayam summa innakum baada dalika la mayituun summa innakum yowma alqiyamati tubaasuun te bu bu demee ba ab appam jot day faatu ëllëg bis penc suñu borom daf koy dekkal kon yàlla mi jaarale fi doomu aadama moom moo leen gën a xam seen bopp kon nag fala tuzakku anfusakum huwa aalamu bi man ittaqa kon amut lenn loo xam ne war naa mën a tax ngay kañ sa bopp ngir yëkkati ko ci doomu aadama yi ndax ki gën a ragal yàlla yàlla nee na man maa leen ko gën a xam te nit ñi li ñu rawantee seen ab rawante mi ngi nekk ci ak ragal yàlla ku la gën a ragal yàlla moo la raw ku la gën a rafet jikko moo la raw يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم yéen nit ñi dama leen a def góor def leen jigéen def leen ay giir def leen ay askan ngir ngeen xamante waaye nag ki gën a tedd ci ki gën ci du ki ci gën a rafet ki ci gën a bokk ci askan wu askan woo xamante ni si dañu naan askan wu yax bu rëy la waaye du ki ci ëpp alal waaye ki gën ci yéen mooy ki ci gën a am ak ragal yàlla moo tax Sëriñ Tuubaa doon na wax ne wala yasuddannaka mada al azmani an aqdihi kawni min alsudaani id akramu alibadi inda allahi aktharuhum taqwan bila shibaahi sama bind yii nekk gi ma nekk bokk ci der bu ñuul bu mu tax nga bàyyi fi samay bind ndax nee na ki gën a tedd ci nit ñi fa yàlla mooy ki ci gën a ragal yàlla te loolu amul werante amul lënt te ragal yàlla googu nga xam ne nit kuy gën keneen ci loolu la koy gënee du ci làmmiñ la waaye ci jëf la nit ki day jëf loo xam ne jëfam yooye manees na caa sukkandiku daan ne ah kii kat ku ragal yàlla la te jëf jooja yàlla dana ko gis ab yonentam dana ko gis jullit ñi danañ ko gis wa qul i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduuna ila aalimi alxaybi wa shahaadati fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun kon nit ki jamono bu nekk jërul muy xool boppam di kañ boppam di bàkk boppam ndax am na nit ñoo xam ne noonu la leen yàlla bindee fu ñu toog rek daanaka ñoom ci seen bopp lañuy wax te la ñuy wax ci seen bopp dañuy jubloo tiitaru ak kañ seen bopp ak bàkk seen bopp loola nag gënut waaye nag am leneen loo xam ne jege naa ak moom nuróo na ak moom te fekk bokkuñu mooy lan mooy nit ki daal mu ngi wax ci boppam di wax ay rafet rafet di wax lu baax waaye lam ca jublu nag daa jubloo nettali xéewal gu ko yàlla defal nit ki daa jubloo nettali xéewal goo xam ne yàlla defal na ko ko loola aayu ndax jege na ak lee waaye yéene yee ñoo bokkul kee yéene mooy lan mooy daa jubloo yëkkati boppam waaye kii yéene mooy lan mooy daa jubloo nettali xéewal gu ko yàlla defal te loolu bu ñu delloo ci alquran suñu borom day wax ne wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis lu la sa boroom defal ci ay xéewal nee na loola na koy waxtaane moo tax nit ñu baax ñi dañ doon wax ne waxtaane xéewal gu la yàlla defal nee na loola ak sant yàlla la waaye bàyyee waxtaane xéewal gu la yàlla defal nee na loolu mën naa dugg ci li ñu tuddee ak weddi njekk bu ñu delloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana def lu mel noonu bu ñu demee ci saxiixul buxaari yi yonent bi toog naag saxaaba yi di nettali ay mbaax ay rafet-rafet ay ngëneel ci yonent yi ko fi jiitu woon ñu ne ko waa yonent bi yow nag yaay kan ndax yonent bi buggul woon wax ci boppam waaye mu ne leen ana sayyidu di aadama wala faqra man day doomu aadama yépp man maay sang ëllëg bis penc it bu ñuy dekki man la yàlla di njëkk a dekkal waaye it ëllëg man maa njëkk a dugg aljana waaye it maa leen gën a ragal yàlla waaye maa leen gën a xam yàlla suñu borom loola daf koo wax ci anam ak nett li xéewal gu ko yàlla defal beneen bi ci tegee yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci benn xadiis bu wér ne jox nañ ma juróomi mbir yoo xam ne joxuñu ko yonent yi ma fi jiitu woon juróomi mbir yooyu mooy lan moo yàlla suñu boroom defal na ma ci suuf sama xeet fu ñu nekk rek mën nañ faa julli te xeet yi jiitu woon wala diine yi ñu fi jiitu woon kenn mënu cee julli fu ci seen ay barabu jaamukaay yàlla fa ñu tudde seen ay église wala yu mel noonu daan na it defal na ma bu ma dandee sama noon doxab weer dafay daal di tiit daan na it defal na ma lu ñu tudde jawaamiul kalim mooy kàddu yu tënku waaye amee maanaa yu baree bari waaye bokk na ci lim ma defal mooy jox na ma lu ñu tuddee shafaatul kubra muy ràmm gu mag gi ndax ëllëg bu ñëpp sonnee suñ boroom daf naan ko sal tuuta wasfaatu safa waxal laajal ñu jox la boo ràmmuloo ñu ràmm la moom la sëriñ bu mag bi di wax ne yawma alqiyamati taati rusulu qaatibatan wal anbiyaau lahu wal kullu qad wakima yaqulu kulluhumu nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham xayra man rahima yonent bi sallallahu alayhi wa kon loola day nett li xéewal ku ko yàlla defal alhamdulillahi alladi ixtaara nabiyana sayidana muhammadan wastafaa بالرؤية خصه وبالشفاعة ارتضاه وللمقام المحمود ارتضاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه الأعلام أما بعد فيا أيها الناس استعدوا وما مثل العمل الصالح من استعداد وتزودوا وما مثل التقوى وطاعة الله زاد وحاسبوا أنفسهم لا وحاسبوا أنفسا لا شك في كونها محاسبة وراقبوا أعمالهم هي بلحظ الأجفان مراقبة وتوبوا إلى ربكم وارجعوا واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وتأهبوا فلا بد من نقلة الممات والوقوف من القيامة في عرصات اعلموا أن الصلاة على نبينا المصطفى الكريم من مفتاح أبواب الرحمات وأن الاعتصام بجنابه العظيم هو الموصل إلى أعلى المراتب وأطرف الدرجات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد يخشى عقوبة مولاه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله لله الذي أسرق في قلوب من شاء من عباده أنوار اليقين ونشطت جوارحهم لطاعة رب العالمين نحمده تعالى ونشكره على إنعامه المتوالي كل حين ونستعينه ونستغفره من ذنوبنا التي كل منا بها رهين ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله ومصطفاه وجل شفيع في المذنبين أما بعد فيا أيها الناس إن الله لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا بل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال أيضا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ولا يشغلنكم التكاثر في الأموال والأولاد فإن يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون واستحيوا من الله أن يقلبكم في نعمه بكرة وأصيلا وأنتم على معصيته ومخالفته معتكفون ومع كونه لا يعقب عنه مثقال ذرة فقد حد لنا حدودا وجعل علينا حفظة وشهودا وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون عباد الله تفكروا يوما يحاسب فيه العباد على النقير والقطمير من كل ذنب صغير أو كبير اللهم ارزقنا توبة نصوحا وعاملنا بلطفك الخفي ما أنت أهله يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترفع بها عنا كل ويل وتجلب بها إلينا كل ليل وتحجبنا بها عن القوم المفسدين وتوجه بها إلينا نصر القوم الصالحين آمين يغفر الله لنا ولكم